asalaamualeykum ñu ngi leen nuyu ci Miroir HD TV tey nag ki ñuy waxal mooy Pape Alé Niang Pape Alé al sa mbokk yépp nee nañ alhamdulillah alhamdulillah waaye nag lenn la ñuy wax dama ni Cheikh Omar Anne yow la ñuy waxal waa pap ale yow bu la joxee dix million fan la jëm ah bu la joxee million, millions fan la jëm Cheikh Omar An, Cheikh Omar An, yow kudd nga newon kudd ku ko yor tibb nga ba doyal bab ale nak musul yor saxu tank bay yoru kudd ak kuddug lu sax yoru ko yorul kuddug lu yorul dara bu yoron lu sax ñu mëna wax waaw kudd lañ la joxoon waxuma la kudd de kudd lus nga yoron yow kudd luus di luus yaa ngi dégg kii bu la joxee 10 millions fan la jom léegi xam nga lu ñu bëgg nga jéggal ko jéggal ko te yàlla tax mbokkam yépp nee nañ nga jéggal ko jéggal ko dégg nga parce que 10 millions bu la ko joxee fan la jom Pape Alé mooy soutien de famille la mbokkam yépp amuñu xeer moo leen di dimbali moo leen di dimbali te lim bindee téere bi dafa dafa cher téere bi daanaka nee na këyit yi bi mu koy jënd mi ngi ko jëndee cinquante million ñu daggalee ko ko cent million dégg nga tàppeele ko ko deux cent million mu jaay ba muy jaay ba tey téere bi sax dafa far lamb téere bi dafa lamb ñu ko waroon jënd jënduñu ko yaa ngi dégg parce que niñ ko waroon a jëndee Pape Alé moo ñëw far leen ko liiral ci télé bi télé ba mu ko doon liiree xanaa borom télé ba dina ko dimbali xanaa borom télé bi dina ko dimbali dafa ñëw liir ko ñëpp dégg ko ñëpp taayee dem jënd ko yaa ngi dégg Cheikh Omar Anne nag nañ waxante li fi nekk dama ni munoo yor kudd te doo ci kudd waaw mënta ne dama ni mus nga cee ndekki mbaa nga añ mbaa nga reer ci waaye toog noonu noonu rek xiif bay bëgg a dee mus ngeen a gis nga xiif bay baga a dee tiim boolu ceeb ne doo ci lekk mus nga cee njoof fekk fa nga njoofee la Pape Alé xamul loolu dong la danga koo nax ci technique am ñu la jàppale ma ne dangaa am ñu la jàppale dangaa am ñu la jàppale dama ne bii alal ak lu day ni kudd kuñ ko jox wax dëgg yàlla war nga cee mën a ñam xanaa <laughs> yow de jum nga yow mii daal jum nga buñ la joxee lu toll ni kudd te njoofoo ci dara te laaloo ci dara dara dara yow nga ne laaloo ci dara <laughs> yow nag nañ waxante li fi nekk ma ne laal nga ci wala laaloo ci loolu la laaj rek ah nee nga laaloo ci nañ jàpp ni laaloo ci moom nee na laal nga ci loolu la wax doon dimbale askanu Sénégal Pape Alé nag xam nga lu ma lay xamal del tasaare ban yi nga mel balaa nguur gee jeex di nga torox de buñ la jàppee dagg la di la dog dogee sa alal ji loo yor ñu jël ci loo yor ñu jël ci bu yàggee looy dese doo dese dara dàq nañu la DSS dégg nga nga ñëwati seen TV gëj naa laa gis foo ne foo ne buñ jëlee ci yow 10 millions fu ne ñu dagat ah di la alamaan may wax ñu boole ci ay tëj ay aj ak ay éliminé ak ay affaire nga mel ni sóor buy football ah bu ñu aj nawetaan sax xanaa yow yaa ko raw léegi ah fa nga nekkoon deses gis nga aji ale alaaji njaay la nga daj moom Pape Alé ni mu sonnee woon ci télé bi ndeysaan da daan wax a wax a wax ba xutu xataam ni xaar fu mu mujjee lu dul ñu dàq ko ah Pape Alé ah dul ni dul nii foo nekkati waxtaan na neex boroom kër yamal si sa tasaare gi yamal si sa tasaare gi Sénégal bëgguñu ko dëggu bëgguñu ko dëggu da dëggu dong loolu moo la indil ay jafe dëggu googu nag xoola teg ko nee loo xamati liir loo xamul teg nee da ngaa yoru njaboot di nga torox de suñ la jàppee ay 10 millions dagg fii suba ñu dagg vingt millions teg fee ginnaaw suba ñu dagg 30 million teg fee looy dese est que yow yor nga dara sax est-ce que yor nga dara fa nga doon jàppale ak yi nga doon wax sénégalais yaa ngi nii ñaari dërëm duñ la ko jox xanaa naan Pape Alé woo nañ koog ñu ngi koy laaj xaalis ak ñu ngi koy waaj a ah c'est Omar Anne damay wax nañ waxante nag boo <laughs> eh sëñ bi nañ waxante li fi nekk kudd gi nga ne kuddoo ci dara dara dara yow ah yow nag dinaa la seet si bu ko defee ma xool ba xam kudd nga ci wala kuddoo ci ma ni kudd nga ci wala kuddoo ci seex ñang moom xam naa ni moom sikkim la rek gessoo ko ci yóbbaale waaye xam naa ni lu ëpp ci alal Pape ñaa koy moo koy teg Pape Alé dama ni dafa am magam bu jigéen boo xam ne day sëy Pape Alé moo koy dimbale Seex Omar dama ni maama ma ngi dund moo koy dimbali seen waa dëkk ñoo ko moo leen di dimbali ay doomam tamit da leen a dugal moo leen di fayal ak ay doomi magam ak doomi fameem kon 10 millions yi yow tamit wàññil ko ko defal ko ko un million waxi kese mu fay ci lii ak téere bi ni mu ko bindee ni mu seere ah par aale nag gisuma la mbaa waaye nag dinaa lijjanti kurkur yi dara ñu jël fayal la bu beneen yoonatee tëjal saw làmmañ tëjal saw làmmañ wax loo xam lu fii boo waxee loo xam gis nga fii da ngay wax dëgg ñu lay ñaanal njekk wax dëgg ñu lay ñaanal njekk moo ne ni li nga wax nekk na waaye dëgg dafa am fu muy féete loi dafa garaaw de bul fàtte sa loi dafa garaaw de bul fàtte loi dafa garaaw pabaale xamal ma xam buñ la téyee dogot dogot di nga dellu ci baadoola fa nga newoon de te fii Sénégal bis boo baadoolaa di nga jël mbëkk mi mbëkk mee xew de lu leer laa la wax waaw